حمدي وشكري لمن كل به سارا لهور دن دون صوت حند سرسارا حمدي وشكري لمن كل به سارا لهور دن دون صوت حند سرسارا حمدي وشكري لمن كل به سارا له ردا دون صوت حند سرسارا حمدي وشكري لمن كل به سارا له ردا دون صوت حند سرسارا الله فيه أجم من ساره إلا داري أو ساره فيه أجم من ساره إلا سرقنا فيه أجم من ساره أو ساره إني لمن كل به ساره إن سلوه ردا زيارة الرسول حين سرسا إن حمدي وسروري لمن كل به إن سرى له سيارة فرح دون سدارة إن سرى من <laughs> زار إن الذين آه، إلى كل شجار خرق سدو زيارة فرخو دارين دارين كل إن الذين إلى سجار دارين كل سيارة فرخ سيارة فرخ دي وسوكري كل به سيارة كل نسوة حند سرسارا حمدي كل لمن كل به سارا له ردا دون سوء حند سرسارا jërëjëf sëriñ Touba di leen jottali kàdd cant yu jóge ci soxna Mariama Kunta min Cheikh Mouhamadou Fadal ak mbooloo mi mu àndal ñëw ci Sarsara ñu jiital ci sëriñ Abdul Khoudous Mbakke moom sëñ Cheikh Fatloo moom sëñ Cheikh Fat Fallum Cheikh Ibrahima Fatimi waaye di ci toftal eh, ki ko sëriñ si di booleel muy doom di lépp sëriñ Hamidou Mbakke moo nekk ne sëriñ Saliou Rakkam waaye di siyaare bu baax a baax nag soxna Kunta nee na jëmm ji nga xam ne ñoom ñaar benn lañ muy sëriñ Sidi Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadou Mourtada mu ne ci bi mu wootee ci liggéeyal sëriñ Touba di njariñul Sarsara soxna Kunta nee na woote na loo xam ne ñëpp la ko bokkal waaye ku ne war na cee sant sëriñ Touba ma newoon Sarsara kon nee na mi ngi koy ñaanal sam bi ko Cheikh Mourtada def yàlla na dëgër lool yàlla na yàgg lool yàlla na wéer ndax aajoy bindeef yëpp la sëriñ bi soxna si nee na woote nga jàmm joo xam ne ñëpp ko bokk kon sëñ Tuubaa daal liggéey waaye ganaar gën ko faye fay googu yàlla na nga ci jiitu yow muy woote di sëtu sëriñ Tuubaa yàggal seen xalifa bi Cheikh Mountakha ci barke borom Touba mu yàggal liggéey sëñ Touba waaye soxna Kunta ne mu ngi jottali kàddu yi sëriñ Abo moom Cheikh Mouhamadul Fadal ci gi nga ko tuddee sëriñ Fallou sëriñ Abib woo ko moom Cheikh Mouhamadul Fadal Touba ci kanam ne ko mok seigne abi seigne abo mom seigne abdou fata ñi nga waj bëgg ñew ñëw nañ ànd ak kunta bi ci kanam seigne sii mbacke mbàkke soxna kunta ne bi mi tew di tew dañu leen dama seddo seigne sii di seddoo gànnaar fa kon damay jitu di leen xaar waaye lepp lu ñuy nas rek ma ngi leen di xaar bu ngeen ñew seigne abi bu ne ko yow lañ jidal kon li seigne bi wax legi seigne na kunta da seddo ganar bëgg ko ab dëkk nak neena bëgg ko baax na waaye wa dëkk ba bëgg li daam solo kon neena doomum ji nga ko dalal sëriñ amidun yani yalla guddal fanam ci reum lepp lu la waroon matal na ko di ciara soxna Ayda Jaw même andal ci délégation serigne Pape Jamee waye soxna ne ñom ñi jóge Thiès doon lépp soxna Kunta ñi ngi sante bu baax di jéglu bu baax ci kaddu yi di wax ne soxna ci nena na lépp mat na matale na señ ci yalla fi yag tëwéer bàkki borom tuwa ñaan inshallah taala mu ngi nonu mu ànd ak soxna Kunta mbakki mom si Fadal daal di jël li nga xamanteni moy ñaan gi jërë ngeen def amin شكري لمن كل به سارب له ردا دون صوت هند سر لا ànd ak Serigne Sidi Mbacké moom sëriñ Mourtada ziar yu am solo yooyu nga xam ne moom lay amal nga xam ne ñi nga xam ne ñoo jógee ci mboolem goxi Sénégal yi kenn ku nekk day fexe ba dem fa yow comme ni mu ko defee ci soxna Kunta moom sëriñ Fallou muy lu am solo. xam ngeen ni soxna Bintu Falit mooy wayjuru soxna maam Marème incha allahu taala fa lañ fas yéenee dem amal fa li nga xam ne mooy ziar yi noonu rek lañ koy defee kon dama leen di bàyyeeg sama caméraman rek su ko defee ba nga xamante ne àgg nañ fële nga xam ne mooy kër soxna Bintu Fall incha allahu taala. رحمة من أن أنه في عجم من سار إن الذين إلى سرسار خرق سدوا Thank you. waaw kay jërë ngeen jëf euh, mbokk yi sëriñ baa ngi noonu wàcc euh, fas yéene jëm ci soxna Bintu Fall ni ma leen ko waxee woon léegi euh, fas amal lu am am solo. waaye magi taalibe yi nga xam ne mooy fekk na leen fi ñoom ñëpp daal di koy teeru ci noonu nga xam ne noonu la ko sëriñ Touba bëgge الله كل لدى أبار مكرمات من حرتها النوافي هاجم من سار إن الذين إلى سرسار خات قصادوا سيارتي فرقوا دارين أو سارا إن الذين إلى سرسار قد قصدوا سيارتي فارقوا aw néew sara jërë ngeen jëf mbokk yi ginnaaw bi sëriñ bi ñëwee ñu daal di koy dalal ci xasida yu am solo yooyu sëriñ baa ngi noonu uh, toog egsi fii nga xam ne mooy kër soxna Bindu Fall noonu leen ko waxee woon rek incha allah xam naa du ñàkk rek suur ci kanam soxna si dana ñëw daal di saafoonte ki nga xam ne mooy sëriñ bi incha allah niñ ko baaxoot jël kàddu yi nga xam ne mooy kàddu yi nuyoo mu bàyyi ko ci sëriñ bi waaye su ko defee nag door jël kàddu yi nga xam ne mooy bàyyi ko ci ki nga xam ne moom la ñu fekk si muy soxna Bintu Fall kon incha mi ngi noonu ñu sant bu baax di gërëm bi ñaan suñu borom defal tawféex wa axiru daawaan daa rabil alamin salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu man ngeen a topp seen seen alxadimiya ak Sarsara TV incha allahu di ngeen mën a am lépp loo xam ne ab xew-xew la fii ci mil édition 2023 jërë ngeen jëf. ñun daal na nga dund ba doy la rek. ne la sëñ Mourtala rafaatale jëmmam ja kenn ku ne na ko sédd ba mu doy la te sëñ Fallou mi mu féetewoo sëñ Fallou mag ma nii daal laa koy séddalee. na sëñ Mourtala ñëw simiku ci yow ba fees dell sëñ Fallou Mbacke simiku ci sëñ Fallou mii ba fees dell lii dong lay ñaan Mbacke ci barkeb soxna bu Bousso. ci barkeb soxna Diarra. ñu ngi ñu ñuy ñëpp rek ci turu Serigne Sidi Mbacke moom suñ Mahamadou baax Mbacke ak waa daayiratul fédération bu Nouakchott sëñ bi mi ngi siyaare ñëpp rek di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp rek sarsaara siyaare bi bi leen tax a ñëw rek ñu amee ci lu kawe seen yoot sëñ bi nag tey daa jug di wër fédération bi nga xamee ne ñoo jógee baax jaarna ci soxna Kunta mu àndaat àndaat ak fédération bi ñëw fii ci soxna Bintu moom sa Mamadou Fadal suñ suñ suñ Fallou moom wax dëgg yàlla ku ne xam nga ko ci ci ci ci ci sarsaara ji moom la Cheikh Saliou Mbacke daan yebal moom daanaka moom bari na moom loo xam ni maanaam kilifa gu mag ga muy sëñ Saliou Mbacke Cheikh Mahamadou Fadal la daan yebal tey nag ñu tuddawaat ko Cheikh fallu Mbacke waaw borom mu am mu am waaw kon moom moom soxna si moom tey da ci am xaas da ci am xaas waaw da ci am xaas moom sëñ Fallou moom ñëpp nangul na ko lu ko yàlla defal daana wax ne lu ma wax mu am buñ ko laajee lu ko waral dañ leen su ma noppee jàng téere bi rek maa ngi koy tari moo tax lu ma wax yàlla fekk ma fekk si ma fekk si ma kon nag tey jii nag moom soxna si soxna Bintu moom dana ci jariñu bu baax a baax dinaa di di di nuyuwaat tamit soxna si nga xamante ne moom Euh, dañ koy xoole sëñ Fallou waaw waaw sëñ Fallou ku si ne lay xoolee rek noonu ngay toll too tooloolu wax dëgg yàlla am na sëñ bi tamit xay na yitt yee bari waaye ku ci ne xam nga ni daan teew ci sa ci lim day teew gunge ñu ba ñëpp kontaan mu daal nag bu demee ba yabal ay doom ak i soxnaam kon alhamdulilah alhamdulilah kon yàlla na yàlla def jàmm rek xëy sëñ bi nag sant na leen bu baax a baax a baax a baax. yoon wi gis na coono yi ni mu bëree waaye nag gisu leen ko sëñ Tuubaa ngeen gis waaw sëñ Tuubaa ngeen gis daana wax ne képp kuy liggéeyal sëriñ Tuubaa maanaam sa coono du ma ko gis nax ki ngay liggéeyal la xam ni war a fayee waaw waaye coono yi gisu leen ko luñ mën a def tamit duñ dab sëriñ bi luñ mën a def ci coono mun ñëw dab Seexul Xadiim bu fekkoon ëpp nañ koy coono ci la ñuy wax waaye ñun lu ñu mën a daj rek sëñ Tuubaa ñu gën a sonn kon ñun defagun dara sëñ bi tamit nee na mi ngi sànn sëñ Mamour Gueye mii waaye nag boo ko rëccu lu waay jëf lu waay jëf rek sëñ Tuubaa jar na ko waaw waaye tamit nu mu toll toll tamit sëñ Tuubaa ngi ci kawam waaw loolu tax nag yëf yi xol lañ koy defee waaw xool lañ koy defee duñ sonn duñ sonn sëñ bi jar na ko waaw jar na ko moo tax tamit sëñ bi tamit macha allah li ngeen wax léegi yal na ko yàlla uh, yàgg ci wér ku bari passif la ku bari passif la kuy waxtaane diggante sëñ Saliou sëñ Fallou Cheikh Mamadou Mourtada moom wanewul boppam waaw wax loolu laa xam ne moom mi mbind mi yenn saa yi mu wax la ci loo xam ne da xam ni moom doomi mag la daal hmm, noonu la mën a demee sëñ bi bëggul dara dara dara dara dara loolu sëñ Touba maamam waaw loolu laa xam ci moom ku bëri positif la ci mbindum sëriñ bi ku waxee sëriñ Touba la waxam yëpp rek ci sëñ Touba la koy wax kon nag am nañ ci moom yaakaar waaw yàlla na yàlla def jàmm ci moom ba lii mu somm ni nga xamee dafa dafa am doole nag rëy yàlla oyofal ko sëñ Mamoun sëñ bi nee na mu ngi lay bàyyi sëñ Tuubaa rek waaw waaw kon nag ñu tënkal ko ndax dañoo dañoo dañoo bari waaw dañoo bari euh, dal yu nu war a dem dañoo ba bari dañoo dañoo dañoo dañoo bari dal yu ñu war a dem nee daal mi ngi lay bàyyi ak sëriñ Tuubaa foofu nag fa la ñaan yam fa la ñaan yam mu ngi lay bàyyi suñu kon nag fédération bi nag ñeneen fédération bi tamit waaw ci fédé waaw fédération bi ñu ngi koy sant bu baax waaw waaw sëñ Mamoun waaw sëñ Mamoun ci jiital bi nee na fédération bu a baax a baax waaye santan gi santante gi dañ koy def rek waaye sëñ bi sëñ bee jërë sant waaw sëñ dañ koy def nii waaye sëñ bi sëñ waaw waaw waaw ma ne ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal ci borom fay ko ci sëñ bi nag li muy def dafa am solo lool bu ñu ñëwee dafay génn kër gi soxnaam génn néegam jox ñu yaatal ñu boole ko ak ay ñam mu di ko togg bis bi yàlla sàkk di ko indi te sëñ Tuubaa wax lu am solo ci joxe ñam mu ne wa luqmatun tasuddu batnal jaa'ihi afdalu min banaa'i alfi jaami'i reggal benn biir tuyaaba ji nga ciy am moo gën nga tabax junniy jumaa kon na nga xam ne li ngay def dara fetewu ko kaw ñu ngi lay ñaanal ci barke Sëriñ Tuubaa li ngay jëf yàlla na ko sëriñ bi fay defal la gudd fan bu ànd ak wér-gi-yaram ba ñu yàgg fee ñëw yàgg la fee fekk sëñ Arma Sy mais nag démb dama am ci moom benn yëg-yëg ñaanal ma ko ci bàkki tubaa day jàmbaar lool ci yoon bi bëri na ñu fi ñëw ñu ànd ak ñoom moom di ñëw fii at mu jot day génne xaalis bu dul jeex paasal ay nit li ñu àndal ñu ci ëpp daanaka moo leen di at mu jot te bëggut a feeñ ci dara li muy def sëñ Touba rek tax mu koy def ñaanal ko ci bàkki Serigne Touba ñu yàgg koo ànd mu yokk ba yëg ko ci sama xol laa ko tibbi ndax xam naa ne borom pas-pas dëgg la jërëjëf yàlla doon milliardaire jërëjëf حمدي وشكري لمن كل به سارا له ردا دون صوت حند سرسارا حمدي وشكري لمن كل به سارا له ردا دون صوت حند سرسارا